bisimil ilaahi ci barkeb sayxi fàddilu mi yàlla dolli noo ay maqaam yàlla bisimil ilaahi ci barkeb sayxi su ma waxee loolu ñett yoon mooy démb ak tey suba ñëwagul tey ñu ngi parcelle seet si jëmm joo xamante ni kenn dootu ko naatable ci mim réew xëy na jotoon nañ fay jaar yàlla suñu borom am loo xamante ni jotoon na ko cee wane tuuti mais loolu dootuma ci ñëwaat li tax dootuma ci ñëwaat mooy yaakaar naa ni lu ne fànge kenn du ko jeex ki nga xamante ni mooy kilifa gi ngeen jàkkaarool nii ndeysaan àdduna boo ci nekkee gëm li nga gëm nekk ci li nga nekk yàlla suñu borom di lay timbali ko sëñ Mouhamed Niang ñu bàyyi la nga nuyu ñi nga xamante ni ñoom ñoo lay seetaan ñu doo ko tàmbali gën a xuus ci li nga xamante ni moo di waxtaan bi. defal nu tawfeex defal nu saadatu jariñ muy tax addina ak alaaxira waaye képp ñu ci la koy may mu tege ci yoonu sàkk yu sàkk noonu lañu waxee asalaamaaleykum di nuyu boole ñu ci dig boo xam ne ñu ngi yóbbu suñu kàddu wala mu ngi suñu jëm di ñaan nee na suñu kon yàlla moo leen defal jàmm barke macha allah yéen a ko dégg li nga xamante ni sëñ Mouhamed Niang nuyoo na ko te bu mu bëggee xam kan mooy sëñ Mouhamed Niang lan nga ñu a dégtal ci jëmm ji nga xam ne moo di sëñ Mouhamed Niang sëñ fan la cosaanoo. waaw bu ñu ne kan mooy sëñ Mouhamed Niang ab jaamukatu yàlla la suñu borom di jaamu yàlla ba nga ci gën a suufi mooy ki ci gën a ñeew fàtte waaye yaakaar mu dul dimbalal yàlla yaakaar naa ne dimbalal yàlla fekkee ci wàllu cosaanam ci ay waajuram ci diggante Louga Louga boobu la nekk ñu wax Goumba Diour loolu mooy cosaan bi ci wàllu waajur bu jigéen bu fekkee waa ci wàllu góor bi daanaka mooy cosaanam garab la tey tey ji maanaam bu ñu gisee tey ci ci wàllum xeet bi mooy maanaam tey doon na loo xamante ni tey maanaam cosaanu cosaanu biiru cosaan loo xamante ni moo lën na xël cosaan tey di gëm naa ne mu nekk ci jëmm ji mais si sëñ Mouhamed Niang lan moo tax bu ñu jàkkaarloog moom rek di gis ab benn leer goo xamante ni danga koy gis di kontaan di gis ci moom leer goo xamante ni da leer ni boo ko gisee rek xam ne leer gi leeru kilifa la loolu lan la ci yow. ah alhamdulilah alhamdulilah loolu danañ ci wax mooy jaam bu mën a doon ci kaw suuf loo tedd tedd tedd tedd as jaam nga ci yàlla te suñu borom nag moo xam ci gën moo xam ne ko déggee jàmm moom jàmm ko la waaye suñu borom fonk na jàmm yàlla lool fonk na doomu aadama ah ñu ngi sàkk wala ñu ngi gis loolu ci ñun ñaanal ñu ko allah yéen ko dégg li nga xamante ni nuyoo na ko mais bu ñu ñëwee ci biir xuus ci li nga xamante ni moo waral waxtaan bi moo meñ ñaa dafa am loo xam ne yàlla suñu borom daf ko ko may lu jëm ci wàllum li nga xamante ni moo di wàllum seet ñëpp di ko lam-laamee ci mim réew Mohamed Niang seet gi loo dond la wala loo jàng la wala luñ la nas la. waaw seet bu fekkee ci wàllu seet bi man moo xam ne moo xamante ne mën nañ ko waaye daanañ wax lu kaas gën ñu bàyyi ko pour mën naa nit ci gën a ñëw waaye nekk fànn bu ñu seetee buñ seetal nga xam ne gis nañ la dëgg waaye nag am na ci lu bari lu am maanaam ah, lu am jotam wala boog sit nañ ko sax li ma rek mën a wax daal mooy zikar pour yàlla ci lañ jóg te zikar pour yàlla yi suñu borom turam bi ci nekk dafa am fu mu jëm am na ci tur yoo xam ne suñu toll nii boo koy zikar dara du la dee képp boo jàkkaarloo mboolem secteur yi nit ñi daan ko xam waaye nag doomu aadama moom njëkk dafa war a xam moom mooy kan xam boppam xam borom ndax doomu aadama lu foor la waaw te suñu borom rek moom mooy waa ni moom mooy moo xam lépp ba change te am rek ndax doomu aadama bu fekkee muy xam xëy bu topp ko topp ko topp ko di ko ndamoo rek daa jëm juróom ko def ci xëy ndax da nga waxal nit loo ko war a waxal su ñëpp te bisu penc boo koy dégg nag moom ñu bokk penc ñu nekk Sénégal ku ci nekk war naa maam ci sa morom wax ji bu baree wax loolu yëpp nit lu mu jënd fi nga xam ne mbokk wala lu mu jëf na ko jëndee suñu borom si wax ci koo xamante néewu la nga am ko nga naan ko wala nga naan lu toll ni Sénégal ñëpp dégg loolu ñàkk xam la ak man daal nit ki nag bu demee ba dikk dana damaa bëgg nag man ñaar nit ñu dikkee di seet kenn ki day génn kenn ki toog ma ci loolu dama koy wax. lu tax loolu. déet maanaam àddina dafa doy waar àddina dafa doy waar liy gën tey liy toog suba tey tey dina suba du benn beneen saa yi nga am soppi. Mm. bu la soppi nga soppi ko ngeen dox ay at ca kanam wala ay weer ca kanam. cofee ba mu soppeeku noonu. ndax la nit ñi benn bu dul intérêt tamit nga xam ne ñun soxla ci boppam. mooy nit ku ñuy ay ñaar yu ñu am dañuy derniante ku ñu derniante boobu. man nga caa gis ko am di ko jox du doy man nga caa gis ku yàggal jënd bi la muy am mënut a joxe mënut a joxe lépp wala mënut a bokkoo lépp bu yàggee yooyu dana indi noole seen diggante. nit ki wax te fekk wax bi wax nu mu ko déggee ak nam ko waxee wuute na dana indi yooyu yëpp waaw ndax tey wax bi may wax ñu koy déglu nag ku nekk fu koy dégg waaw suñu borom ñu bindee nit ñi seen xar kanam yi wuute mën na seen xel yi wuute mën na seen xol yi wuute waaw loolu tax nit ki tamit di seet seet lu ko koy waxe say secret wala toog wax wala sax yéen sa génn fu ne def tàmbali loolu ma du ko def waxtu nekk day dikkal na mm-hmm. waaw te nit na nga xam sa bopp rek xam sa borom mm-hmm. ah, na lool mm-hmm. ay jaam bu nekk mën naa xamee boppam ci boromam waaw seet la tëdd ci yoon jaam yàlla bi jaam yàlla bi tey mooy ko tey mooy ko loolu bokk na ci man loolu bokk na ci du ma wax moom su ma yoon ñëw yoon bi moo ko gisee mhm. bu ñu duggee ak mu ngi dugg da mhm. cee xew yi lépp mhm. suñu borom kàttanal naaw ma la bokk ñu génnoo macha allah waaye nag li suñu borom dogal ci at mi yëpp mu war a xew ci at mi ndax loolu lépp noonu lay xew hmm? ndax benn affaire dana am nit dana war a faatu mhm. mu def ab sarax rek. Mhm. wala dimbali nit ak su borom fant loolu. delluwaat ma ci question boobu tuuti parce que loolu noonu dafa xaw a nekk loo xam dafa xaw a lëndëm tuuti si xel. sarax. Mhm. Hmm? wala mu dimbali nit ak su borom fant loolu ndax lépp lu war a am su ma ko dégg ci ay yu yëpp lu ma xam. doomu aadama bi bu amul kashfu wala nga am wilaaya ba man caa xam dara waaye mën ngaa toog tur yàlla tur yàlla tur yàlla ba yéen a la xam ne nii la di la informé yooyu rek moo am mais ñi xam ne sax dañuy doon ci ma ne jinne nga may xamal naa ne mën na ne gis nga jinne yi mhm. ba si pouvoir wàll ko mhm. ci wàllu koy mhm. nga xamante ni bu ñu waxee fukk ñaari mooy dëgg juróom-ñett yëpp ay fenn mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam feeñee jamono ba leer nga suñu borom jooy ko ci xaasin ba nga garab bi sax dañuy wax dañuy dañuy wax xaasin. boobu la seen doole tàmbalee woon ñëw. daf loxo bu wax. muy ndox mi ndox mi ndox ndox ba ci bàyyi jàpp la waaye ba leer suñ daay ñëwee boolem seen tàllu fa yëpp. loxo bu wax. boolem seen tàllu fa yëpp suñu borom sàkk na ay jum biddiw ci kaw asamaan loo dem seytaan bi lay wax di in jël fa information. Mhm. laajte dañ leen sànni bi mu sawara yi muy tàkk. waaw ba nga xamante ni kumpa moom. mën nañu koo xam mën nañoo nekk fii nag ñu xam li ci kanam. Mhm. loolu ñun ñii rek. Mhm. waaye la nga xam ne moom mooy lu wér wér ñoom xamatuñ ko. kon nit ñi bu fekkee muy information bi ñu wax ñu ko manqué la. te gis nga suñu borom bu ne bu tuddee ba jullit ci alxuraan. ñooñu ay jullit lañ. bu tuddee ba seytaan ñooñu ay jinne lañ yoo xam te ne duñu jullit. comme tey ñu baatu yahut amee. wala nasaraan yi. noonu mu mujjee baatu muslim. yahut allah yéen a ko dégg li nga xamante ni secret la boo xamante ni seen moom benn ñaar doon na ko leeral tuuti kon léegi yenn sëriñ ñi nga xamante ni dañuy jug naan damaa yor ay jinne sama biir kër dugg na fii génn fii maanaam di nax nit ñi ci yenn boor tey jii ñooñu tey jii nga xamante ni tey wute nañoo ak yenn xeetu ñaan yi nga xamante ni ci alxuraan lay jóge tey ñi nga xamante dañuy bàkkoo wàllum jinne ñoom jinne boobu ñuy bàkkoo lu ñuy najja wala lu ñu lu lu ñuy tekki la. waaw xam nga jinne moom nit ñi am xel. Mm-hmm. ki koy bàkkoo bu njëkk. Mm-hmm. di faj nit. Mm-hmm. ay weer ak i semaine. Hmm? di ko tuur loolu deret di neexal diggante moom moo njëkk leen di boppam. allahu akbar. moo njëkk leen di boppam. ndax gis nga loolu. dañ lay dawaay ay jinne. nit am jinne di ko lay dam ko sax. parce que jinne bu fekkee dafa dugg nit. dafa dugg nga tànneen ko. dafa dugg nga tànneen ko ñu bëgg ko. di ko dugg. des fois boo xam ne nii lii kii bu ko amee man naa réussir kii mën naa ko mu te mu ngi indi ay gàllankoor si rawatina lépp. Mhm. waaye li ci ëpp dina ci diggante góor ak jigéen lay nekk. Mhm. wala jigéen bu séeru wala góor bu mhm. amagu soxna. di dëgëral mbir yi. ngir bëgg ñu ko bëgg. waaye seytaan yi nga xamante ni nag ay seytaan yi dina ñoom ñoo dugg nit. ngir lor. di ko daanu lu di ko suuf ak yeneen yeneen yeneen yeneen fan muy demee ak di ko fexe bu ñu jël loo xam ne ci kanamam su la sos dañ koy soxla ndax ñu daan ci wan ak lañ nekk ak yeneen yeneen yu bari léegi bu fekkee yow da ngaa yor ay dina tey julli dina yi nga yor ay julli dina seytaan bi ñu ci ko lool nga ñëw naan ñoo ngi koy basa ñoo koy def nag ñoo ngi koy def nanga pour doon naa ko léegi moom waxtu boo xamante ni trente ay bopp diine ñoo ëpp nit ñi fo ñu ñi maanaam ñi ko xam dëgg di ko fayee ci tur yàlla ak leer xam nañ li may wax. Mhm. nga ne diine ñoo ëpp. ñoo ëpp nit ñi fo. diine ah, mais sëñ bi nit ñi nit ñi bari yi nii ci àdduna bi foo tourné gis nit ñi nga ne diine yi ñoo ëpp nit ñi. yow man mhm. mhm. yow te ñooñu fi ñëpp yëg. ñooñu fi njëkk. ak jamono ji tey jii ni mu tëddee rayee bari da ngay jékki-jékki gis ñaari ne di xuloo kenn yëkkati paaka jamono moom mu dee nga jàpp ni est-ce que loolu neen la ci jamono ji ñu toll nii ci jamonoy akul zaman bi. ba mu tax laa texe dana ko defloo. te jinne seytaane lu mu defloo ak jullit. daanaka bàkkaar ba rek daal ndax nit ki moom moo war a sàkkal ci boppam. loolu di ko ñëwee moom. allahu akbar. ñu doon nit ñu bari sax mu seet mënuñu ko. julli waxtu juróom mënuñu ko. lu julli concentré wu te mënuñu ko. maanaam baatu julli bi rek moo fi nekk nii ñu naan julli julli la julli julli la mais jëmewut noonu. waaw maanaam nit war a bàyyi xel boromam. maanaam nit ñi dañoo war suñu borom ndax intérêt àddina mhm. bu bayee bi nga xam ne lu mu yàgg yàgg. Mhm. ci pënd rek. su ma maanaam fii waay fekk fi lu dul ay montagne. Mhm. ay xolu garab moom suuf loolu. kon suñu xamoon. fekk fi adversaire bi ko mat sëkk nag. bu mat ak seet sax. gannaaw ñeent ñeent ñu daan teewal yéen dañ leen di tuub di tuub di tuub. dañ mhm. tàmbali di leen di julli mooy ci ñoom. Mhm. waaye dina ñu ngi ko ne yàqu suuf si rek di ko ba su ma néew leen waaye suuf si ma baax mhm. si kan topp si loolu dafa mën a xam kon nit ki bu xamee ne am na noonu bu mat noonu lépp loo xamante ne jii leen sat na ko da caa war a nekk da caa war a nekk waaye sat rab moom dafa war a gaxal bu koy daan nga ñaanal ko tey dafa ko ni koy defal dootul daanoo waaye ngir bañ ñu dugg ci yaram ak nelaw ñu loolu ñu bàyyi ci yaram xamante ne foo leen ko mm-hmm. ko jax jaxal dafay doon ay sàngat ngóor ñu ko juróom ñaari fan yooyu ngir loolu sa ci yaram mu pare ci waaye dem bànq bi mu war dem ba indi sa yuuxu fii yeneen ak yeneen loolu yëpp dara dara dara dara allah akbar yéen a ko dégg yéen a ko dégg gis nga waxtaan bi lu muy gën a xóot xam-xam bi gën a génn nit doomu adama yi di ci gën a jariñu waaye tey ñi nga xamante ne tey dañ leen a def ay liggéey ngir bëgg seen yaram maanaam set ci liggéey boobu maanaam nga xool nit ki nii nag def ko loo xamante ni neexu ko te xamu ko. maanaam nga indi ko ay gàllankoor wala mu jékki-jékki nekk daf man nag am na am na am na jëmm yoo xamante ni toogoon naa ak moom xëy na yàlla suñu borom dimbali na ko ba ba mu jàkkaarloowee ak yow am nga loo jëflante ak moom ba xelam sax commencé woon na dem yàlla suñu dimbaliwaat ko ba tey jii nga am loo xam ne tey jii donc ko dimbali tey ba nga xam ne tey jii guddi ñu wax ne tey jii attan naa dimbali ko tey ba mu ak yow tey ji yàlla dimbali ko tey mu am wér ak wér la tey nga xamante ne tey dañuy jël doomu jàmbur yi di leen liggéey tey jii buñ bëggoon a ñëw tey ci Mouhamed Niang ngir bëgg liggéey googu tey ci ñoom ci ñaata fan nga leen mën a jënd liggéey boobu. déedéet liggéey moom maa la ko wax kii la liggéey boo ko jëlee tawal kii la liggéey ba mënta am tawal. Mhm. kii la liggéey daa am am liggéey dafay àgg ci. Mhm. loolu moo jox sama nit ñi sax. Mhm. waaw waaye liggéey nag ak ak am na bu ko gën a gën a garaaw daan ci ñoom. kii liggéey ak ko xalaat ba nekk du góor. moom bu ñëwee du saa si. dañ koy defal dañ koy defal mu tàggoo ak moom. mu tàggoo ak moom. ci même jour. allah akuma suñu liggéey ak liggéey ba mu mën a demee ci même jour. Mm-hmm. dama lay jox dama lay jox nga jëfandikoo ko. ñëpp mm-hmm. sa yaram moom lépp lu ci nekkoon dañ la. Mm-hmm. waaye bu fekkee ci nga ci wàllu àddina ma yooyu ci takkaaram benn yoon nga utilisé utilisé mu lay bëri waaye ci liggéey ci yeneen liggéey nag da nga ko sangoo tey waaye da nga ko sangoo juróom-ñaari fan ba tax juróom-ñaari fan dañ cee soxla bis yi. ak i bisam daal. waaw boo tàmbalee ci dimanche. wala samedi. Mm-hmm. bés yi dafa am ak wuute. te wuute yooyu am na rapport bu ñu am. ci mm-hmm. doomu aadama. allahu akbar. waaw loolu nga xam ne xam nañ ko. léegi mm-hmm. bis bu ci nekk na jëfandikoo loolu te ñu xam asraar dëgg. buñ lay jox dara nga koy jëfandikoo. mbooleem gis la dafay bokk fi mu am na ci yoo xam ne sax. dañ la naan na nga ko laal balaa timis a jot ndax bu timis jotee rek day gis loolu beneen bis bu dugg na. loolu la ñu bari nag loolu nag tamit sax ñu bari dañ koy taw a xam. parce que dañuy yaakaar ne tànk timis jotul rek wala gee jotul tànk gee jotul rek dugg ko ci beneen bis ba. te diggante timis ak gee daanaka waxtu bi bariwul. te tey jii ñu bari dañuy bàyyi ba timis passé ñuy doog a def loo xamante ne tey jii euh, maanaam nit ki léeg-léeg tamit ñu ñu digal la dara loo ko. ngay sàggan di sàggan di sàggan léeg-léeg nga jékki def ko léeg ko def nga dem ba ci bi daal ne sëriñ bi ayut loolu nga yaakaar ne ci ab tayef la wala ci ay taayal la wala liggéey bi ñu liggéey moo tax ba nga xamante su war a jëfandikoo loolu noonu dooleem dafa yem. waaw xam nga ñaare ñaan yàlla moom. ci boo jàkkaarloo moom mu ñaanal la jox la. nga dem di ko jëfandikoo nam nga ko waxee. da nga ci am taw feex parce que seet. waaw loolu moom lu gën a gën. da nga ci am taw feex parce que seet. Mm-hmm. waaye tamit. Mm-hmm. yaa dem bu fekkee nit ki. Mm-hmm. rajo Alban bi mu sangoo foree. bu fekkee mm-hmm. yeneen. loolu moom ay gàllankoor mën na laa ci tëj. maanaam boo jëlee ay ay ay ay garab nekkaat ci leneen. di fo di fo. waaw ay gàllankoor mën na laa ci te alxuraan moo gën a gaaw lu mu mën a tool. te bu la ngir nga tëjuwaat. Mhm. yomb. Mhm. lenn bu mu mën a gën a gaa mën a mën a gaaw tëjal. Mhm. nga sàggan ba ca bari ci sa yaram. wala nga liggéeyaat. wala bàkkaar bari ci sa yaram. waaw bu fekkee sunguf. am na ñoom dañ koy moccee. da koy sa bool léegi gis mu xaw a tuuti waaye day jékki-jékki taxaw. bu taxawee da lay um. wala bu taxawee da lay um. um. sëñ bi loolu yéeme na de. yow xeetu xam-xam boobu moom yéeme na de sëñ bi. da nga koy sangoo dox ay semaine ay quelques jours. ñëpp def na kàkk taxaw. taxaw am taxaw. mu daal di la yeneen sunguf sang sang sang sang am na am pax bu ñu tuddee sunguf sunguf doom baaxoon naa ci ba daj waaye pour nga jiwaat semence ci sunguf boobu. ñu xaw a xam nga problème mu am na ñu waxoon dëgg dëgg am na xeetu suuf yoo xam ne moom jënd. dara ko nga xam ne nit ki bu dikkee. heure bu nekk da nga yokk ko mu dem jëfandikoo. Mm-hmm. dafay koo jox ni tey bu subaa nga joxaat ko bu bëri gannaaw suba nga joxaat ko bu bëri. Mm-hmm. waxtu wu ne. Mm-hmm. nga jox ko muy garab yi am nañu ay mandarga am nañu ne rek ñu ko xam xam nañ ko nit ñi noonu la ñu mën. nit ñi dañu koy amee ko da ngay gis ni da ngay gis ni dana dox dana am taw féex bu baax a baax. waaw. waaye ñaan lu yàlla nag ba noppi. Mhm. naan kii yoon na yoon boo ñaan loo nan la ko sant. defee mhm. ko noonu. Mhm. nan la ko sant. defee ko noonu da nga ko gis kàddu taw fii. waaye tamit ñaan lu yàlla benn yoon rek foofu la nga rek baax. ndax yow sa jëli des daa war a jekk rek. wala ñoo gis seen. damaa dem sama mbokku dox nangam ak nangam war war waxu mën a taw. ñu ki am ñaar bi ñu wala am nañu jox. li mhm. sax àddina bi tekki ci. wax foofu sax bëggoon naa ko ñëw tuuti euh, sax sëñ Mame Mbaye Niang da ngay gis koo xamante ni day dem si ab sëriñ na ko ñaanal ma yëkkati benn junni jox sëñ bi di ko defal ñaan sëñ bi génnee ci poosam ñaar fukki junni dem génnal ko ab sarax boo xamante ni tey jii waxu ko ko te loolu tey jii bari na si li nga xamante ni maanaam sëriñ si da leen di dal léeg-léeg da ngay jékki-jékki ñëw ñëw ci ab sëñ ne ko damaa bëgg nga defal ma dugg na fi génn fi ba sëñ bi dafa ne li defal ba pare ah, bi nga defal na ma ñaan waaye gisuma ko te fekk na yow gannaaw yàlla yow la nga xamante ni maanaam moom moo moo waral la nga doon sàkku yëkkati woo lu méngoo ak loolu noonu jox ko sëñ bi ngir sëñ bi tamit xolam bi sedd ci est ce que nekkul tam loolu tamit du tax ñenn ñi nga ñaanu seen ñaan tamit di yéex tamit ci waaw loolu ma nga ca ndax yéene dafa am solo. Mhm. nit boo yéene dañ koy yéene. Mhm. man am na façon tuuraay yu may def yoo xamante ne. Mhm. dafa seer ko. ñu doon ni kër bu ñu def liggéey. wala bu liggéey nekk ci yaramam. war naa ñëw da ngay dem ba àll ba xaw a aar nekk ba sori ko bu dee ci kër ba sori ko. waaye foo ko suuroo. foo ko suur. daal bu fa nekk dañ koy. dañ ko mën a doon bu baax a bon nag mu kër de seen yoon ñëpp yàqu na bu fa seetaan ni kon day doon. tubaab boo ko tuddee bu dee li nga xamante ni ay jafe-jafe yi amoon cosaan yi. ku mu commencé suul bu ñu lay tuuru bay si daal da ngay teetee kon ci ay mel xam nga day nit ñi. bu mm-hmm. fekkee dafa dafa dafa nekkoon ci mu mucc. Mm-hmm. njëkk ak wér. Mm-hmm. waaye des fois nga gis ko xamante ni bàyyi ko ko teg. naan am na koo ko teg. parce que dañ koy duñ ko xam. duñ ko xam. Mm-hmm. beneen bi ci topp yi ñu toll nii. Mm-hmm. am na ci yenn xeet ñaan yoo xam ne boo ko am ay cuuraay yoo xam ne spécial moom nga a jëfandikoo. Mm-hmm. am na parfum yoo xam ne litre. litre bi day jar ay douze millions. nga ne litre bi day jar. barke alquran ay douze millions. douze millions ak yoo xamante ni daanaka gramme benn taal benn boo coono def ci taal mu tàkk daanaka nga bi ku jëndee vingt cinq mille ba pare ñeneen ñi jënd bëgg tamit si ñaan bu tolloo la mën a te mun ñoo jëndee tamit loo xamante ni mooy mooy mooy pàcc ñaan boobu. Ah, ay millions yu bari ay millions yu bari waaw loolu tey am na ci xeeti ñaan boo xamante ni bokkul ko lu mu gis. Mm-hmm. wan bàyyi waa Sine. Mm-hmm. léegi ñu si total ci xarit na. Mm-hmm. ba faw. mu gën a réussir dana jàll. Mm-hmm. ba ak njabootam sax ku ci judd. Mm-hmm. da nga jàll. dafa am ñaan yoo xam ne day topp dara. allah pour yàlla dafa fort. Mm-hmm. dafa am doole. waaye léegi tey. naka la ko nit ki mën a jaxale. di ko def maanaam loolu xam-xam du ñu fi bëri ñu nit ñi ko war a jëfandikoo. ñu fi nekk. ñu fi nekk. macha allah. seen xel yi ñuy utiliser bi nangam ak nangam ak yeneen ak yeneen. loolu. doy na waar ndeysaan mais moom na te dafa am yenn xeet yoo xamante ni dañoo dugg ci kër gi mais dañ ko fee gis. moom lañ na am na jaaro yoo xamante ni da koo liggéey ci ay xeetu jaaro. ba daal ñu jëm ci yenn yi nga xamante ni dañu ko gis mais yenn xeetu jaaro yi nga xamante ni dañu koy commandé. jaaro yooyu noonu pour amul sëñ la wala ku la liggéey du jàpp.

ba jëm loolu moom day allah xeetu bi bi day jaar ci ko wàllu ubbi ko ak wàllu wërsëg wàllu wërsëg waaw day joxe wërsëg bu baax a baax a baax a baax a baax alal na ko solo ko di nga denc di nga di nga bu baax te dana la yomb da nga koy am am ku la jaaram waaw loolu moom moo ci bu fekkee butéel yi ngay wax bu fekkee bii moom wàllu émorite. wàllum émorite émorite waaw moom émorite lu métti métti métti métti boo ñëwee ñu jox ab butéel nga tàmbali ko jël tey moom su ngay nopp ko yëg métti. est-ce que xam nga ni jamono yu ñu toll daanaka ñëpp a am émorite. sëfo seeg téere yeeg képp ku toog ba ci am na patron yu mag yoo xamante ni macha allah. parce que foofu sax bëggoon naa wax ne parce que bi ma la téléphone yaay ñëw ci biir euh, écran télé bi incha képp koo xamante ni kilifa te dafa am loo xamante ne am na xeetu kilifa yoo xamante ne maanaam dañuy bëgg sutura parce que bëgg di ñëw ci ak ba set wala ñu ci ak ñëw am ngir bëgg di sëgg ak sëñ bi yéen kilifa yi nga xamante ne tam da ngeen nekk tamit ci état bi wala ngeen nekk tamit nekk ay autorité wala ngeen nekk ministre wala ngeen nekk ñeneen bëgg jëflante ak sëñ bi mën nga jëlee numéro téléphone boobu incha allah bis boo ko jëlee bis boo déggee ak moom dina la wax jour yi nga xamante ni boo ni bëgg ñu génn bëccëg parce que yi yenn heure lañuy jëflante ak boo ci ñëwee da ngay jël secrétaire incha allah rabbi mu ci bi nga xamante ni incha allah rabbi léegi ci immobilier bi génn nga ne secret yi maanaam lan ak lan loo xamante ne tey bu ko ci jëfandikoo ñaata fan mu tàggal ko ak loolu. waaw traitement la waaye benn fan daal xam nga Sénégal bi moom duñ fa tawat. nekk ci lañu fa bu nekkee ñu ko. bu seetee ñu bàyyi ko. waaye peut-être boo ko jëlee naan naan suuf boo ko jëlee naan ci benn kaas. tàggoo nga nekk noonu la ko doon ba mu jël jeex. balaa ngaa jógee di nekk moom dana yàgg lool lool mhm. ci kaasu ataaya la koy xel yi di ko naan wala soo ko wala wala pot ndaw. kaas bu ndaw rek. lekk ba pare koo jëfandikoo. Mhm. maanaam journée bi ñaata journée bi ñaata yoon la ko jël benn yoon la ko jël wala ñetti yoon la ko suba si ngoon gi ak guddi gi. waaw mais loolu bu nit ki ñëwee si. Mhm. danañ ko bëgg a leeral ba mu leer wax ko ni ko jëlee. Mhm. waaw ndax am na yoo ne nag ñàkk nit ki koy jëflanteel. Mhm. waaye garab bi lii daal garab ko xam bu fekkee ci wàllu ko xam. Mhm. waaw te ku jëfandikoo a baax a alhamdulilah tey jii am na beneen digal boo ne gis naa ko fi. mu am yeneen dafa mel ni lu weex. am na beneen boo xamante ni dafa mel ne xaw a ruus mais bitéelu beneen nga xam ne moom moo tax ci bitéel dafa xaw a nuru yéen yi dañoo joxoon xaw ne nu mu fa demee bi pour ko gis bu baax a baax. moom ci ko tax a jóg. siti. ànd ak soxna daanaka teel a àgg da koy yomb. loolu yëpp daanaka. loolu moom jamono ji ñu toll moom lépp la sëy yi moom. sëy yi bari looloo ko sëy. boo jëfandikoo day tàgg moom ci lu gaaw. moom ba mu si boo xam te na ba nga yaram ak ngay boobu wala yére. bu ko tàmbalee jëfandikoo day nit day wow. te day yéex ak fa la jaaree moom lépp daal moom ñu ngi koy génn ñëpp ñëpp ñëpp xam nañu. macha allah. waaw macha allah bu jëlee bu tuuti bi. bu ndaw boobu noonu parce que defe naa ne bu jëlee moom tuuti na ñëpp tuuti waaye nag. yaakaar naa ne ah. xam-xam gi ci dëkk yi yëngu ma man. xeetu ak lan lan mm-hmm. moo nekk mm-hmm. ci ak lan lan lañ benn benn sëñ. foofu mhm. moom bu baax moo am gàttal lool. te mhm. mu benn sëñ. dana mhm. man bu xéewal bi bu baax a baax. te dama sawar bu baax. li loolu moom mooy li nga xam ne moom moom. mais euh, euh, sëñ sëñ Mohamed am na xeetu xaat yoo xamante ni dañu ko doon gis. xeetu xaat yooyu da ngay xaat ay yéen ko solo lépp wala da ngay xaatante ci samp ay nit wala da ngay xaatante ci samp yoo xamante ni tey bëgg nañu am wërsëg bu ubbee waaw am na yenn xaatim yoo xam te ne naa si na ko defal pare nit ki di ko sol. waaw mhm. defal pare jox nit ki moom di ko sol. yu am am am am solo lool. Mhm. waaye nag man ma fonk alquran ni ma ko bëggee moom moom dina dina mën alquran ci yéen di ko sol. loolu mhm. naa ci secret yu bari bari. sama xel ak sama xol moo ko mën tey euh, la man man laa xam ne léegi dañu ko soso loolu la wala bëgg la wala la man parce que di yàgg rek ci gën a tijjee wallaahu akbar ci a xam lu bari mhm. te Sénégal nekk na ko jigéen boo xamante ni seen yaram yi ko lewoon loo. bis bu tàng. ku nekk sa ñàkk dem ba laal sa moom di ko yaramam. bu fekk naan jëndoo mën ci wax pour bis ndax. ak yeneen i yeneen i yeneen yu bàyyi bàyyi yu dal day dal xelam. waaye def ngir naa kii wala def lii lii ñu garaab ma am lu ñu yéem man dama ko def. lépp loo dal sama xel sama diggante sama borom. mu a ko dégg mais wax nañ ñaa am na ñu xamante suuf ne nañ. muur yi nga ne ñoo ñëw ba bëgg ay kayit yàgg ko loolu te mënuñoo am ay kayit. tey jii a téléphone yaa ngi noonu mën ngeen ko récupéré incha allah ngeen jëflante ak moom da ngeen jël sa téléphone tey jii mën na ña nga xam ne dañoo bëgg tukki bëgg a dem ut bi bëgg a daal seen doole ñi nga xam ne dañ fa nekk ba pare am problème bi te bis bu ñu bëggoon jëflante seen moom ñaar est-ce que seen moom ñaar pare ngir dimbali leen ngir ñaanal la ñaan boo xamante ni yàlla su dina la leen dimbali da nga xamante ni doo nekk seen gàllankoor dina li nga xam ci wàllu këyit am ko ci jàmm ak salaam ba mën a ñibbi sax ba ñu laa ngir mën a dem a baax waaw ki nga xam ne dafa bëgg kii dañ ko waxtaanee suñu borom bi dama ci jublu. Mm-hmm. waaw loolu moom amul si ndax li ñuy def nii muy wàllu ñaan jàmm mm-hmm. nit ki da nga ko war a xam teg di ko teg ci lu leer. Mm-hmm. dama lay jox bu ma la ko joxee nga tàmbali ko jëfandikoo. dalaay yàgg suñu borom yàlla na ko fi nga yi bu nangu xanaa fi mu loolu loolu gisuma ko. waaw loolu moom mooy sama ñaan moom li ci xel nangu ko boo ko ñaan. xëy na ñaanal la gannaaw suba nga am ay milliards am kër bu rafet am oto am naa ne. kenn ku si moom te nekk. te nag sëriñ si bëgg boo xam ne la la am kër am ak jabar bi nekk am xaalis bari ba fa nekk di te mu leer ne loo xam ne kii doon na loo xamante ni da ngay sàkk sa borom rek mais lu da ngay nit di wax ak yow alxuraan ngay jàkkaarloo lool ndax alxuraan loolu lan la sa ñoom alors ñu ngi koy sant yàlla bu baax rek ñu ngi koy sant yàlla bu baax li nga wax léegi xam nga tey nit ki mën na koo ñaanal mu am alal. Mhm. te mu am kër. Mhm. am lépp waaye da nga koy defal da nga koy defal mu dem yàlla defal ko ak ubbeeku mhm. muy am bañ a yàq tey lan la ba am loolu lépp. waaye dama ne la comme ça nit ki ne la kaay ñaanal la tey suba gannaaw suba nga am loolu lépp. mënta nekk. te ñu bëri te ñu bëri loolu lay def maanaam ne leen dafa jox la gëmuñu yàlla dañ leen defal junni junni junni junni mooy maanaam da ngay am kër am oto am jabar nga dem ci biir ñaari at ñetti at ñoo koy tàggal xeet ñaan yooyu dañ koo si maanaam di ñaan si borom boo xam ne leer na ni mënta nekk kenn du ko def mhm. waaye am na xeeti ñaan yoo xam ne lu mën a nekk la nga xam ku xam loolu boo ko ñaanalee nit day am ci kattanu suñu borom yàlla wàllu kii moom ku ñu ca jëflante suñu borom la defal la dimbal beneen bi ñoom suñu jox léegi nag. Mhm. am na ñoom dañ jaay seen leer léegi lan la man bàyyi wala fi jox képp ku la dégg. Mhm. ku ko def rëcc noonu bëgg may wax seen wax sax. parce que dama jékki-jékki man man dama jékki-jékki gis man gis naa ko ay borom doole yoo xam ne dama yàlla baal ma mais bu duggee seen biir da nga fekk ay laago laa mooy ñu fekk mooy maanaam ci ay pus-pus la ngeen toog parce que tey kooku moom tey nga fekk ko fa tey dama kaa laate bu xëyee dee alal la ngeen nax saay dem loolu maanaam yàq gëm yàlla la nga di ko def wala yàq ca ak sa at laa tax nga di ko def waaw loolu benn pàcc la bu ñu see si ak seytaan yi ki am ko daal dëgg ko la kon diggante daal seytaan ak musique daal foofu kon kon am na ca jox leen ko ñu def ci moom wala mu jël lépp nga xam ne buy wax sax ñu ñu ñu mën a composé ak moom ci ay wax. leneen la mën a defee daanaka day déformé wu mel neneen. wala nga jël sa doom joxe ko ñu fàtt ko carrément. ndax alal la ànd la waaw wala mu bokk ci yow wala leneen boobu baax na ñooñu xam nga si tamit. Mhm. te ba loolu si bon. man la jël la ñu jël loolu loolu la bés. maa ngi gaaw loolu nekk ko liggéey naka dinañ ko def ko dugg rek ñu jël bàkk sa bopp. allah akbar. bàkk nga sa bopp bàkk si biir amoon na. tuuti lay toog yow tàmbali laa toroxal. nga ne tuuti lay doog tàmbali laa. tàmbali laa toroxal. yàlla na ci yàlla musal. coow bi bari lool. yàlla na tasaaroo. ba tey jii dama lay gis. sa njaboot muy dugg ci kaw. nga tëdd ca sëg yeeg am ñu jël ko woon. waaw da ngay bëgg suñu borom bu dara dara ndax ñooñu day day ñu dara jël kenn. ay bisu bisu bisu yàlla nañ ci yàlla dara dara dara dara jox ci àdduna. waaw alal boo ko amee da koy def ko xool rek maanaam sama loo fukki mu bëgg nañ jësoon te mooy lu soog bëgg nañ gis ko soog. maanaam lekk lool ñoom ñëpp boo ko defee lor ko ndax lekk rek coono boo lekkee ba ba sa biir ñu fu. nga war a ñëwaat coono yooyu. waaw soxna yi jëm ca coono. ba pare coono gis nga yëg. man nag bànneex la bu ndaw bu ñàkk a fay boo xamante ni ci bët la yem ak làmb maanaam succès bi ci nit ñi tudd. ak naam ñoo ngi gis ne tamit léegi ndax jar na ko. <laughs> ah yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal jàmm ah moom it ñaar moom it ñaar yàlla suñu borom euh, daf ko may loo xamante ni li muy yëngal mooy. su ma borom dafa xam-xam dafa xam àdduna te su ko nee dafa xam àdduna mooy dafa xam lu bari dëxëm ci daa ciy toog te jëfewu ko en cent pour cent maanaam day toog di dimbali jàmm yàlla yi tawane ko sëñ bi am nañ loolu yàlla suñu borom na mot ci yow la wala loo xam ne yow yaa sax sa borom na yow sa borom tey jël defal la loolu waaw alhamdulilah ñu ngi ciy sant suñu borom yàlla ndax suñu borom moom alhamdulilah wax ci mën sa borom baax suñu kër bi maa si moom moo yor li ngay moo yor ci daan mu ko jëmale mu ko mooy faddu baax ci kan la def ko non ko solo waaye jàmbaar amul ci kenn de Allahu akbar ndax yaakaar sa jàng franc bi rek franc bi rek di jàng alquran sax ci tasida yeeg nanga mën nanga yooyu yëpp yokk ci boobu suñu borom dara waaye gënal na ko Allahu akbar waaw gënal na ko te man nag su yàlla jàng alquran ak tasida sama yaakaar bi Cheikh Modou Fall parce que ñoom gën a moom gën a lekk moom gën a naan te nag am na lu ma wax ko si wax la ñi lan lay xamida la xalwa ci moom dafa am xaal dama am na ñu mhm. toll man daay xal xal xal xal ñu ci daay ñoo ci mos a jëfandikoo ñëpp da ngay moom ñu ko réparé naan nga toppatoo def say affaire bu bu duggee war a def xalwa muy aay bu la jaaxal eh? waaye yàlla xam nañu parce eh? que Seydina Muhammad fukk nit ñi ma daanaka ba fan nit ki damay fukk ah ku baax na naan la nga doon gudd gi daal moom moom day kii. loolu la am taw fii loolu la am taw fii loolu nit ki sant suñu borom ndax gis nga maa ngi wax nit ñi benn affaire bu am solo nañ ko bàyyi xel. ndeysaan. gis nga suñu yaakaar kii. waaw. parce que daal moom la ñu. ñëpp nag laa war. ndeysaan. man kuy jullit rek nga bàyyi xel xas bi borom. seen mëntaxaa bu du sekk ay ay gàttal bi njëkk gis. mais su ma mën na ku ne jàpp ak moom ay yaakaar moom ngeen di gis. waaw loolu mbégte la ci yow nga ko bëgg nga nit ki sax da ngay wax wax dëgg yàlla. moom la jaay secret yooyu lan la quoi lan la moom la jaay. la la waaye. waaye daal loolu moom xam naa ne. waaw moom moom moom moom ndax dama wax ni maanaam. toosa ak la bay ak la walbati wala waa kama axana sama xasida yi day àggale jaam yàlla ci yàlla ci lu dul muy soxna bi dugg xanaa te jaam bu xasee ba àgg ci yàlla na lu mu fa bëgg am waaw sax ci alxuraan pour yàlla xasida di jaam sa borom rek loolu nag moom moom nag na ci gaa yi nekk moom mbégte mu réer yi la lu am stress macha allah soxal day neex da ngay sant waxtu wu nekk nag moom waaye nag da nga am tuuti jafe-jafe mooy nit ñi nga xam ne seytaane sori na ci ñoom te duñ la bëgg te dañ lay fexe waaye sax ci rek yow. waaye nag nga nekk ab sëriñ ba pare retourné waat topp ci service bi. Mm-hmm. tal ko jàmm yàlla toog aussi kat yaa ngi monté ay coup wala yaa ngi def ay affaire mu see affaire yu doxee. Mm-hmm. non da ngay lor sa bopp ay problème rek la. dëgg la waaw ak xol bu naqari. dëgg la waaw jàmm yàlla baal sax ca moom mooy dëgg. ah, ah alhamdulilah gën nañu amal mbégte euh, di nuyu ñeen ñi nga xamante ne nag yéen ñuy suivre bu baax a baax a baax a baax yéen ñi nga xam ne bëgg ngeen ngir jëflante ak moom ak foo mënti nekk ci mim réew ak fépp foo mënti nekk tam ci biir réew woo ko ci numéro téléphone boobu ndax yaakaar naa ne ki ko mën ak ki koy jëm lu ñu benn ndaxte ku ñëw yàlla ba mu xëy na teg nañ benn kenn ko si ci sax ak jëmm ak jëmmam lu mënta ñàkk la suñu Cheikh Ahmadou Bamba ah liggéey nañu loo xamante ni tey yaakaar naa ne tamit ay takkandeeram ak ay leeram gëm naa tey bu ko yàlla suñu borom te indiwaat tey jii ak jamono tey jii ñu maasal ak dem tey jii surtout tamit di jégaluwaat tamit ci li nga xamante ne tamit xam nga mooy li jot a am kon maanaam moo mel ni kon maanaam dañ koy sant mbir mi la wax la ah, ah tey gën nañoo amaat mbégte ci xeetu xam-xam bi nga xamante a tey fekkaat nañ ko ci yow. secret yi bañ nañ mooy da nga xam itam ci cin bi dañuy bàyyi da daal di tàggatoo ñi nga xamante bu bu ñu ko a ñaan Sénégal ci dernier tàgg yi. ñu jaay waaw loolu moom si jaayante bu baax a baax. te mhm. foofu as day borom Tuubaa yi fekk mooy defar jikko yi. macha allah. mooy ñor bi ko am. ndeysaan. waaw mooy laaba bu wuti. ndeysaan. mooy tax nit ki di dund lu bare distance. yu bon yi gars yi def te dootoo ko mën dootoo ko def. waaw da ngay nekk. ñu doon nit ñi amuñu seen bopp. nit bu amee boppam lañ ci doon. waaw nit li tax ma ne nit ñi amuñu seen bopp mooy boo fexe ba si kaan am dara ci yow rek. Mhm. jafe-jafe ñëw na. waaw te xas nañu borom Tuubaa yi. Mm-hmm. ak béy bi rek boo ko boo ko tuddee seytaan bi. moom it yaa sekk nañu jëm. waaye yaa ngi lay moom maa defar àddina. allah akbar moom maa defar àddina ah, bi te nag maa dugal boo xam ne mu tudd ah macha allah moom xam nga ku def sama xel bi ba léegi ñoo loolu nag. waaye du ñu naan suñu borom daal ñu boole ñu dimbali. defal ñu bëri moom ci barke alxuraan karim وافتح لنا في مضاجع كنت فاتحا بشهادتنا من خيرك لله واصل بنا نحج عسر واركنا ضللا وتقبلنا الجنة وسيطان لله وكلنا كل ما نملك ونحسبه وهب لنا كل ما نختار لله وارد لنا كل ذي سهل وذي قرب وكل ذي نحصي لله تغير لنا امرنا شيخ لنا بدنا وهب لنا رشدك وتوفيق لله ودمر كل احداث في ديننا حفل الوصول يا الله يا الله من سبحان الله من سبحان الله te ñun bépp bunt bu dugg ci bànqaar bi musal ñu ci seytaane ak mboolem jinne yoo xamante ni dafay gàllankoor xaar mu sàmm ci dara ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defal ñu wërsëg bu yaatu ak ubbi bu yaatu ak tawfeex bu yaatu ci wàllu waay te musal ñu ci noonu xam te ne moo xam ne seytaane moo xam ne damaa doon ci noonu doon balaa jub daal ngir jëm ci ñun ñun hmm, yàlla na gàllankoor ñaan nañ ko ci barke xasaay yi dooru ci barke xasaay yi dooru sin bii ko ci barkeb sayxi faddilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bismi ilaahi ci barkeb sayxi faddilu mi buur ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi ci barkeb say ci faddilu mi buru yàlla doldinoo ay maqaama yàlla bienvenue